coowal coronavirus ca Chine indi na tiis ak njàkkare ci askanu Sénégal njabootu fukki étudiant ak ñett defoon nañu confrance de presse di sàkk nguurug Sénégal delloo si seeni doom waaye itam nguurug Sénégal am na taxawaay wu mu jël ci mbir mi wàcceen nañu ci askan wi ñoom itamit yaatal nañu seeni xalaat. bon man xam nga comme virus bi Chine la xaw ma ci lu bare bare quoi mais gis naa ne daal ñu ngi wax ci presse bi lu bare affaire Chine. mais quand on dit l'État état bi fait fi teg pour ñu régler problème citoyen citoyens. donc euh, étudiants yi nekkoon foofu aussi dañ leen parce que aujourd'hui nous avons les touristes yi ak voyager bu ñu ñëwee aéroport aéroport am na disposition yi exemple avec les caméras thermiques nga xam ne dafay jël euh, du la filmer chaleur lay jël dinañ xam ndax feebar nga wala feebaroo donc comme comme nous contrôlons l'aéroport, aéroport bi war nañ mën yi aussi quoi voilà man loolu laa ci gis quoi parce que bu yeneen dëkk yi di débrouiller wu am nañ convention ak France mënoon nañu wax ne avion bi jëli français yi mënoon nañ leen jëli mettre leen en quarantaine faj leen donc le rôle de l'État c'est de sécuriser les jeunes sénégalais man loolu laa ci gën xam quoi. ah waaw njàngat bi ñu ci am de mooy xam naa ne mooy bu si ñëpp am rek parce que loolu mom lu métti la lu doy waar la waaye nag ginnaaw tamit euh, damay gis dégg naa yeneen dëkk yu bëree bari ñoom indi nañ seen i vraiment ñun tamit te ñun amuñu dudul suñu njit war nañ ñoo mëna jappalé tamit indi ñu suñu njabar tamit vraiment parce que mit na lool man ma ngoy sétan ci télé bi mais doyna war parce que da ngay gis ko xamanteni mi ngi këram trois jours mënul génn mënul dem fenn ba paré tamit ñun wa euh, ña fa ne doon ay sénégalais suñu doomu réew lañ war nañ leena mëna jappalé pour ñu daal di ñibbisi loolu moom su ko su amoon mom dañ ko rafetlu loolu ñi ñaan tamit gouvernement bi rek mu dimbalu ñu xamni ñoñu ay doomu réewam lañ pour mën leena jappalé ñu ñëw vraiment. bon man yaakaar naa ne doomu Sénégal fu mu mën a nekk ci àdduna donc euh, yàlla teg ko ay gàllankoor surtout ma gàllankoor yu mel ni euh, yaakaar naa ne état du Sénégal war na ko mën a taxaw dimbale ko parce que actuellement situation bi ñu toll nii yaakaar naa ne euh, loo xamante ni la maanaam c'est venu de façon brusque quoi donc état du Sénégal war naa débrouiller trouver tous les moyens pour que jéem a dimbale ñu fa nek même bu féké da lañu ñuy mais mu jéem a dalal sen xel jéem a dalal sen xel jéem a jéem a jéem a xool nan lay arranger situation bi pour que sen parents yu nek fi sen xel dal donc sénégalais yépp dal sen xel dal ok. li ëpp ci ñi intervenir japp ni délo ci xalé yi ak nu mu mëna démé mom moy mooy bi. waaye étudiant bi indi xalaat gu wuteeg seeni bos. ah waaw loolu su ma juumul maa ngi dégg ñoom ñu ne comme ça état warta am excuse si loolu mais aussi bu fekkee ne dañuy bañ aussi maanaam affaire bi gën a propagé mu gën a yeneen danger forcément dañ leen war a jël foofu téye leen fa ñu nekk quoi ndax maanaam mu yàq foofu moo gën mu propagé kii yàq lu gën a bari ndax boo gisee comme Ebola bin amee ñu bay dañ leen concentré Guinée téye leen fa benn yoon ba am benn solution.

quand daal na parents yi ànd ak euh, seen conscience xam ne feebar la rek te puisque du rey sur le temps moom ñu ngi ci def ay recherche daal loolu laa xalaat na ci état déggoo ñoom dala seen xel ne leen ñu ci def ay recherche teg ci tam mu jëleen en charge fële noonu rek la ndax nit moom boo bu génnee sa dëkk yow la lay représenté waaw